l'armée hmm. et de défense président def na ci lu bari. am nañ ci une idée stabiliser véritablement la Casamance. am nañ ci une idée dernièrement ci euh, nu ñu ko waxee 4 avril bi mujj. non non non sëriñ def ci de te loolu mooy li nga gis. waaw du lépp lañ lay wax de. waaw c'est <laughs> man dama am habitude di couvrir seeni réception de matériel yi. tu comprends donc am na ci yoo xamante ne sax même boo demee moo xam belleer nga dem moo xam fu ñu defee par exemple la réception de matériel. li ñuy exposé journalistes yi gis ko bokkul ak ñoom li ñuy denc li ñuy denc moo gën a tar fuuf li ñuy wane lu leer laa la wax. Mhm. tu comprends donc man daal audit yooyu c'est bien de l'annoncer mais il faut faudrait que mu jur dara quoi ba pare mu bañ a nekk benn genre arme politique parce que gis nañu régime yi fi weesu yëpp gis nga Abdoulaye Abdou Diouf euh, non Abdoulaye Wade bi mu ñëwee bon peut-être y a eu certains yoo xamante ne bi ils ont été emprisonnés. c'est que Macky Sall nag moom moom moo tebbi as moom moom moo taxaw mboojeen ne OFNAC pour ñun la finalement OFNAC daanuñu kenn suite à des rapport documentés par l'OFNAC mm-hmm. man ñu ngi may wax jam ñaaju gii am na fa benn litige foncier boo xamante ne bii ku dem ci archive OFNAC yi dinga nga fa fekk waaw mm-hmm. mm-hmm. ah, way pas mal de dénonciation alors ñu ñu rectifier Balma Abdou Karim Sall la Abdou Karim moom moo nekkoon sur le bi muy bi muy bi muy jib bi ñu voilà ah, c'est sous Abdou Karim. voilà voilà c'est bon de rectifier. Mhm. Ah, voilà ah, d'accord mais mais mais le euh, le contrat. Mhm. concerne euh, Abdou Karim Sall. bien lui. ba pare xam nga doon tudd jamono jooju Abdou Karim Sall Diallo. même l'affaire des kii là on l'avait cité l'affaire des. Mhm. Euh, animaux kii là damay fàttali tur bi. waaw tey bi Sénégal fu jafe la jógee lu ne am na fi panthère yeeg. Oh. Eh, gazelle yeeg. <laughs> léopard yeeg ay ay la de ku jël léopard nag di nga ko delloo la qui se ay les vingt cinq <laughs> Sénégal du réew quoi au fait. déedéet dooro Doro moom. bon dañ koy ñaanal yàlla génne ko fi mu nekk. mais man Serigne Mansour man biñ ma naan dooro dina am jafe-jafe ak yoon boobu élection amagul. barke hmm? al yàlla xam na ko biñ ma naan dooro mii kuy am jafe-jafe la ak yoon ba pare wax ma ko au moins ñaari yoon boobu jàppaguñ dab élection fu ñu ko tegoon boobu ah waaw mais yàlla baax na ci ñuy dégg wala ah non yàlla baax na nañ ko ñaanal jàmm rek parce que sëriñ bi ñu bari danañ wàdde hmm? te li ma lay wax nii boo deful ndànk euh, est-ce que ci ñi luubal alalu réew mi noonu ñu bari daal danañ wadd soxna ñu bari danañ wadd est-ce que du man ñaata ñooy bon euh, peut-être di si cinq sept dix jours ou bien plus dina am gars yi wat de. waaw ah, ah. ah oui am na ñoo xam ne seen tabaski moom c'est compromis. <laughs> am na ñoo xam ne dañuy tabaski ñaan déwénal ba pare rek. déwénal sax laa teg ci déwénal bu ñu paree leen di saraxe parce que non mais y a des pratiques mais comment tu peux comprendre. te fay loolu détachement. non non d'affaire boo xam ne xamoon ci lan lay affaire. man man d'affaire il affaire sur quoi. homme d'affaires investisseur ils investissent dans quel secteur moo tax xale yi jigéen yi képp ku leen doxaan naan laan businessman laa teel teel leen ay mbiram c'est ça la vérité quoi au fait businessman la mais am tur quoi au fait la mais en fait la mooy businessman c'est-à-dire <laughs> aussi tamit non mais c'est vraiment trivial quoi de dire je suis mais business mais en fait métier dafay am tur hmm. soit tu es formé sur le tas tu soit tu sors de tu as été formé par. la je suis un homme d'affaires sa xale ndende gi. <laughs> sa xale ndende gi ci lan nga ko toj. homme d'affaires homme d'affaires business. teeru bi après jeex na quoi au fait. Mm-hmm. yow xamuñu loo ibbi. xamuñu koy liggéeyloo xamoo fooy fayee fisc defoo couverture non mais ça sa mais mais c'est mais c'est du ah, méga mais en fait c'est-à-dire ça sort de l'ordinaire quoi au fait. Mm-hmm. da ngay Afrique ngay gis nit koo xamante ne bi palais bi moo ko créé. Hmm? c'est une création du palais mais naturellement mais bu ñu mais si l'ouragan un autre ouragan vient emporte avec lui les hommes du palais mais il sera emporté. de hmm. mais ñu wax na dëgg quoi. mooy kon. au même titre ko aussi. Hmm. c'est pas rationnel. d'être un grand un homme d'affaires qui s'affaire dans des affaires que les Sénégalais connaissent muy opposé wu. dama koy wax léegi mu leer. waxaatal phrase de wóorul de c'est de. mooy lan a. boo nekkee un nom d'affaires un eh, investisseur aussi c'est pas une logique rationnelle ngay opposé wu ak régime en place. lu tax. mais yow xam nga ni yow gars bu ñu xëyee xëy non mais loolu c'est vite fait ñu gars sàkkal la pexe yow tamit. naka mooy redressement yi. redressement ak leneen ak leneen sax. jiñ la loo xamante ne balaa nga koy weddi ak di ay eh, avocats xaalis dana jeex. kon Racine Sy li mu ne man opposé wu ma loolu ngay wax noonu la war a doxee. non l'affaire King Fahd dañ ko war a tiré au clair. <laughs> moom moom moo yooyu ne opposé wu. dossier bu ma xam a ngi noonu mais damay bàyyi ba xam. du baax moom. <laughs> ne opposé wu. non de toute façon King Fahd. <laughs> moo yey dafa war a leer quoi. Eh, dina leer sax ah, nag oui non mm-hmm. King Fahd dafa war a leer de. Mm-hmm. patronat bi ñu fi politique bëri na de. non dama ne dañoo war a aligné wu léegi. non dama ne c'est pas une logique rationnelle laa wax. cest dire mën nga opposé wu mais à ta mais quand même nga def yenn opposition yi ba pare booy opposé wu effectivement s'il y a des de des des des des des comment on appelle encore des choses yoo xamante ne bii c'est palpable yoo xamante ne bii permettre na la nga ne régime bii franchement par exemple il n'accompagne pas véritablement les investisseurs les le les comment dirais encore euh, yenn hommes yi nga xamante ne bii. mais ci li ñuy affaire sénégal yi dañ ciy gis seen bopp. Mhm. régime bi ñëw bëgg laa yàqal et cetera. Mhm. yooyu c'est une autre de manches mais par exemple opposé wu pour opposé wu moi je dis encore un homme boo xamante ne bii dafa fas yéene liggéey ngir dëkkam jàppale dëkkam waxuma li fi daan am nga xamante ne yow mais est-ce que tu sais que Abdoulaye Wade loolu d'accord naa hmm. bi nga xamante ne bii dafa dem vers des dérives yoo xamante ne bii c'était quand même dangereux. yaa ngi dégg commerçant yi ñoom tamit seen arme la ñu am pour xeex am nu ñu def ak moom ah. loolu ñëpp xam nañ ko les gens s'étaient mis en s'étaient ligués pour combattre la Wade parce que aussi tamit jóge fii sa doom toog mhm. et que kenn xamul woon Sénégal foo ko jëme nit ñi am nu ñu taxawee pour xeex la mhm. mais fi may waxee mooy parce que peut-être régime bi neexu la parce que régime bi aussi tamit ñi àndoon ak ñoom tamit ñeme mee ko assumer bëriwul woon nañu wax dëgg nga am nooy defee aussi ñooñu laay waxal mais Sénégal ñun ñoo ko bokk. tey jii bu nekkee par exemple yow da ngaa ñëw rek pour liggéeyal Sénégal yaa ngi dégg. li ngay def effectivement dañ ci am bénéfice mais sénégalais dañ ci gis seen bopp man gisuma benn intérêt ngay taxaw pour di opposé te ñoom homme d'affaires ñoo la ko gën a xam mais le cas de Racine yow yaa ko tudd. mais King Fahd dañ ko war a lijjanti. IPRES. sans sans dans le cadre social. yooyu yëpp moom moomu fa nekk day moom moo fa nekk. <laughs> lii la ñuy jooy fekk kii Fatou. <laughs> koy nuyu bu baax. <laughs> mbool baa bu yàlla ah, war a lijjanti moom lu ñu war a lijjanti la. Ah. waaw te bés buñ ko commencé lijjanti dinaa toogaat fii wax ci man li ma xam. Ah. kon xam nga ci lu bari. xaw ma ci lu bari de mais am na lu ma ci. waaw doon mais man ba ma ci mayee tuuti ma jël. lu ñu waxagul. lu ñu waxagul lu ñu waxagul laa ci xam. lu ñu waxagul. Ah, ba wax. au euh, moins depuis depuis deux ans. ah oui ah, lu ñu waxagul au moins depuis deux ans. condition yi nga xamante moom la.